dóor fayu waaw lii lii mu ñuy def nii ba ma bëgg a jógee plateau bi daw dem fële dama ko bëgg a bégaleeg loo xamante ni bu bu nee wala man bu ma nee allo ba déggante ki may waxal mhm. man leer na ma ne ci barkeb Sidi Aj bu déggee baat ma xol bi dina sedd allo allo yaay booy ñu ngi lay ziar xame naa baat bii de ah, ah papa si Malik ah soxna Aida Sy mu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy mu Cheikh Sidil Hadji Malick. Oustaz Oustaz kii woote mooy kan. Oh. kii mooy soxna ayda waaw mu Cheikh El Hadj Abdou mu Cheikh Sidil Hadji Malick. kii mooy kan. kii mooy soxna Aida Sy. mu Serigne Babacar Sy. mu Alaaji Mansour. mu Seydil Hadji Malick. kii mooy kan. kii mooy soxna Aida Sy. rakki Serigne Maodo Sy. kuñ soxna Aida. <laughs> Euh, mi ñu di pee bàjjenam soxna Ayda si Malick kii mooy soxna Ayda si da baax yaay soxna Kantom yaay sëñ Moustapha yaay sëriñ Lamine sama sëriñ <laughs> kuñ ko ah. dégg ku ñu ko dénk waaw xalifa bi sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour xalifa rek doyoon na yaay daara jaa ngi nii macha allah soxna Ayda si da baax yaay taaliba yëpp bëgg Seydina Muhammad ba mu jeex sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ah, dañu bëgg a sànni benn baat rek si si si fal ko ci si waxtaan wi jërëjëf si waaw moo di li Alioune Diagne wax ci Seydi Hadji Malick bare na radiyallahu taala waaye waxul lépp ndax mu wax lépp xamul lépp nit da nga koy déggal ba nga fekkeel ko xalifa bi boo ko fekkewul déggal ko boo ko fekk boo ko fekkewul déggal ko la ngay dégg ci moom moom nga mën a wax. ca yàlla. waaye ñuy fàttali nit ñi nii. Mm-hmm. li mu wax ci alaaj Malik ak li muy rëy rëy rëy. Mm. alaaj Malik benn la ci jaamu yàlla yi. te nit mënul doon yàlla mënul doon yonent te yàlla def ko ko. benn jaam la woon moom la nangu. wax na sànq ni alaaj Malik daan dundee laaxu da xaar. alaaj Malik ni mu daan dundee laaxu da xaar. laax bi kenn daaw ko ràcc dañ ko daan yekk noonu rek bàyyi ko noonu buñ ci defee buñ ci defee eh, cafaay bi mu bëtt ci ñaari baaraamam ring ko yëngal ko macc yëngalaat macc yëngalaat macc sënt borom ñetti ñetti macc yooyu la ci daan macc waaw waaye ñu ñu fàttali leen rek ni. Mhm. Euh, Seydi Hadj Malick. mosul nangu. Mhm. Euh, euh, tolloog nit ñi waxtuma laa di ëpp nit. allahu bëgg tolloog nit ñi sax di waxtuma laa di ëpp nit. Mhm. moom laa li moom laa liñ daan wax. sànq ni nooy ak wàcc. اللهم لإني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك waaw ma sha Allah loolu moom mooy li Aliou Njaañ wax ñun dañ ciy barkeelu rek nii ndax it xam nga buñ dee wax ci Alaaji Malick dañ koy déglu bu fekkee ni wax na ci lu ëpp dañ koy weddi bu waxee lu yam nag ñu xam ne lii Alaaji Malick ñii la dunde waaw waaw parce que bu mënee wax manaqib bu bu ñu dee wax manaqib yi war nañu mën a waxaale jikko yi. Mm-hmm. allahu akbar. waaw ñu waxaale jikko yi. Mm-hmm. bokk na ci jikkoom nee na. Mm-hmm. li li yàlla di joxe ku ca bëgg am na melokaan woo war a mel. mu ni fa sha'nu rijaalillah. hamlu azal wara. kaza fal yakun man lil ilahi tashammara ci Malick allahu akbar jërëjëf hamdulillah salbara kada fal yakun man lil ilahi tasammara su ko defee nag da ngay nangu mm-hmm. da ngay nangu da ngay boole ci sa jaamu yàlla mm-hmm. ci sa wàcc ci sa suufe lu nit ñi tilimle sànni la ko bul ko faxas mm-hmm. nangu ko ngir yàlla alhamdulilah si sànni la ko doo ko faxas ku bëgg nag ku bëgg am la ca yàlla foofu la gaa yi jaaroon hmm. ba àgg ci yàlla hmm. kaza fal yakun man lil ilahi tasammala hmm. waaw jërëjëf jërëjëf si jërëjëf si Malick si nu ngi lay ziar nu ngi lay ndokkeel bu baax a baax yal na yàlla nangu nangu yal yàlla nangu papa am jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf ah, eh, eh, kontaan nañu ci waxu Aliou Ndiaye bi mu wanee bi mu waxee ci sartu tariqati uh-huh. wax ni tariq bi dafa ni mm-hmm. képp koo xam ni kii képp koo xam ni ki yaa ngi jël tariqa bi di xeeb kenn ci nitu yàlla yi bokk doo doo mën a bokk ci tariqa bi loolu loolu kontaan nañ ci parce que loolu loolu charte la ci tariqa bi ñi ci bokk tey xeeb beneen këru diine wala ñuy xeeb nitu yàlla wala ñuy xeeb sax dof ci mbedd mi xamuñu xamuñu lu xew. jërëjëf si Malick. waaw xamuñu lu xew. parce que ku ku bëgg yàlla. foog nga foog nga loo gis xool ca yàlla. Mm-hmm. ca loo gis rek loo xool xool ca yàlla. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. noonu la ngeen jéggal ñu. li ñuy dagg seen wax ñi waxuñu lu gën li ngeen doon wax waxuñu lu luñ toll. waaye xalaat rek. si Malick si Malick doo dem doo dem mukk te ñaanaloo ñu. ñun ñi fi toog ak àddina bi seetaan émission bi ñu tàllal suñuy loxo. waaw. waaw kay. li ñuy ñaan daal. te Sénégal yëpp tàllal seen loxo ak diaspora bi. guleet euh, li may ñaan. Hmm. li may ñaan dama koy ñaan boole ko ñëpp. Hmm. jaamu yàlla yëpp. Hmm. kuy jullit ak ku dul jullit. ndax ndax séddage may dafa ñaan ñaan koo xam ni. ñaan ñaar la ko ku mu bokkal diine ak ku mu bokkal Adama ak Awa amul ñetteel. doomi Adama. waaw واغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو في الدين يلا kon dañuy ñaan yàlla Ni. waaw eh, ñaan ñaan nag ñaan nag yàllaa ko digle mm-hmm. ñaan yàllaa ko digle mm-hmm. waaye wax na ci biir waxam sànq ni séragement yi ngeen ne yàlla loo may teg mm-hmm. yàlla na ma ko defal sama bànneex amiin waaw waaw hmm. dafa ci jaamu yàlla yi koo xam ne wax ni dafa feebar ñu ne ko ñaanal yàlla mu may la wér mu ni mën naa ko waaye rus naa ko ndax yàlla ma tànn ci biir nit ñi teg ma nattoom ma di ko wax ni ko li nga ma teg neexuma teggil ma ko rus naa ko allahu akbar waaw waaye itam cerewul nag ñun ñëpp dëkk nañu suñuy loxo waaw waaw Cheikh Cheikh El Aziz mii mu wax léegi léegi wax na wax na ci jag saaw fii maa ngi toog fekke hmm. mu wax ni euh, dafa tàng tàngaay mu jàmba tàngaay ba mu yàgg mu mu poñe boppam ba mu mbubbam xottiku Abdou Aziz luy sa yoon ci lu yàlla dogal ci li mu sañ ci moomeelam nga di ci am xalaat loolu sëñ Abdou def na ko hmm. kon li ñuy ñaan yàlla hmm. comme comme ñoom seen maqaam àgg na foo xam ne fii ñun suñu bës àgg fa waaye yàlla noppal nañ nee na uduuni astajib lakum alhamdulilah uduuni astajib lakum di leen ma ñaan ma di leen may allahuma amin yàlla ku ko ñaanul jëppi na la wallahi ku ko ñaanul jëppi na la allahu akbar li ñuy ñaan yàlla na lii tax allahuma amin waxtaane mag ñi ñu jàng ci dégg ci xam ci suñu bopp mag ñi la mën a xamee suñu bopp. Mhm. ki la fi jëkk fekke loo fekkewul. déedéet. xam loo xamul. déedéet. boo dee départ war nga ko laaj fooy jublu. Mhm. Mhm. ñaan yàlla. li tolloog jamono fii lii fi nekk te di jaamu yàlla yàlla bind ko wàcce ko fi du feebar du jàngoro. balaa la. wobaa la. du jàngoro. bu amoon jàngoro am garab li kulli in dawa waaye nag amul amul ñaan yàlla rek tuub ñaan yàlla ak sarax moom rek a ko fii jële coow lu bare bare bare yi yëpp waaye itam nag dem ci biir jàkk yi walla feneen wala julli ji hmm. bonul waaye du ci jàkk rek la war a ñaane yàlla de hmm. ñii dugg xalwa duñu ko duggee ci biir jàkk hmm. daan nañ ko def sax. daan nañ nañ ko def mais li ëpp ci biti lañ ko daan ñaane kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mii borom kàttan day def lu ko soob fa aalun li ma yurid yàlla na ko soob bokk ci la ko soob. Hmm, lii fi xew. jaaxal ñëpp ba kenn xamul foo jëm. wallaahi yàlla nañ ko yàlla teggi. allahumma amiin si Malick. te wotte ko nag. allahumma amiin si Malick la mu fa jëlee yàlla na ko delloo si. delloo si fa yiw. amiin si ak wér. ak déggoo ci dëkk bi yàlla def jàmm ci dëkk bi. amiin si Malick yàlla dolli barki ci dëkk bi. allahumma amiin yàlla jubale xol yi. amiin si Malick yàlla defaraat xel yi. amiin si Malick dimbale ñu. amiin yàlla nañu ko yàlla boole defar. amiin na xel yi defaru. na xol yi defaru. ñëpp ànd ak bëgg a bëgg Sénégal mm. dañu am euh, spécialité boo xam ne ñoom seen jago ñoo ko war a jagoo. Mm. baal ma xam ne li may wax nii gudd na. guddi na trop maa ngi leen di maa ngi leen di jéggalu ñaan suñu borom ñaan suñu borom euh, mu may diñ koy ñaan mm. ñu yaakaar yàlla bu mu tase fenn réew mi yàlla na ñëpp bëggante yàlla na ñëpp ànd yàlla xol yëpp di benn yàlla xol yëpp di benn yàlla na xol yëpp di benn te diggante këru diine yi nag mm. ku ci wax wax ci lu rafet ñaanal de si Malick ku ci wax rek wax ci lu rafet. Mm-hmm. ngir jëm yàlla. Mm-hmm. ku ci wax wax ci lu rafet. Mm-hmm. samp la ñu amee boo xam ne yàllaa leen ko sampal. sampal lañ ko seen bopp. samp yàlla nag ku ko bëgg a daaneel mën nga daanu. wallaahi. waaw diine wax du ci jóg. wax du ko tas. waaye nit mën na ci wax ba yàqu. allahumma waaw yal nañu yàlla dolli sutura bi jaay allahumma amin kon nag Fatiha. li Papa an wax léegi. wala uh, Ali wala Ali Tane wax ko. ni يونين تبي بمين يعني تخنتم فاتح لنيان وهي سيدي حاج مالك بمين يعني فاتح أكثر تدف فاتح أكثر فاتح لبولي نخيجيك مين أنا الله أكبر فاتح أكثر فاتح لك دوين دوين تينيان تيكوه خمتف بس بس دقر yal nañu yàlla nangul luñ ci ñaan. amiin amiin jàng fatiha. jàng salaatul fatiha ngeen jàng papaan nga jiite ko. laalin ngeen jiite ko. ñaan ko yàlla nangul si. bu ñu xeeb tàllal yàlla loxo. bu ñu xaar kenn ci suñu digganteeg yàlla. ñun ñëpp la war a tàllal yàlla suñu loxo fi mu nekk nii. ku ne jaaxle nga. te pexe laa xawla wala quwwata illa billah. bi ñu ko wóoloo ba di ko wax. خمنني تحيي إحنا جنامك يلا ركوبان كن لا جهل يلا سبكت يلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بابو لولو فتبارك الله يلا نينا بنت بيتا يول كبغي رك دالو na ñu jàng ñaan googu te ngeen jéggal ma nag guddaay bi. déedéet doyul lu ñu sax si Malick doyul lu ñu sax wax léeg-léeg ma rek tuuti. <laughs> rey na rey na waaye maa ngi leen di ñaan rek jéggal. macha allah ñu jàng Fatiha def ko. amiin waaw na ko kenn ko kenn ku nekk jàng. waaw ah. kenn ku nekk jàng. اللهم صل على سيدنا محمد كان كنا من جوكو نوكو وفي بحنا جل جيون انت بدك عم صلى الله عليه وسلم حمد نجعل جاك نجعل جاك نجعل جاك نجعل جاك نجعل yàlla na yàlla saxal may leen wér may leen gudd fan koor gi yàlla na ko yàlla nangu te ñu àggale ko ci jàmm bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu képp ku ñuy déglu man def naan guleet guleet tey moom la sa wax ci lii waaye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 jërëjëf papa ma jox la soxna ma jox la soxna Aida mu tàggoo ak yéen waaw. jox ñu ko waaw jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw yaay si. waaw papa an an. Oustaz Wil si. Oustaz mënatul dara papa an mënatul dara yaay. mënatul dara baal leen ñu nag dégg nga baal leen ñu. garaawul xool dafa sedd rek. waaw macha allah yal na yàlla fay leen. allahumma amin. yàggal seen taxawaay. allahumma amin allahumma amin yokk télévision bi. allahumma amin ñuy nuyu ñëpp. jërëjëf si. ñuy nuyu ñëpp. jërëjëf si. soxna Aida. barke Seydina Mohamed. jërëjëf si maa ngi koy nuyu di jërëjëf si. Ah, ok waa oh. kay dañuy dañuy dañuy jéggalu rek. Baye jërëjëf yaay jërëjëf si. jërëjëf si xam naa dafa dégg bu baax. Amadou Mbaye Garmi mi ngi lay nuyu. ah Amadou Mbaye da nga def Mbaye Mbaye. si Malick teral nganu nu. Mbaye yal na yàlla teral la. allahumma amiin amiin sagal nga nu. Mbaye. yal na yàlla sagal la. amiin amiin di képp koo xam ne kii la mi ngi lay dégg. wallaay Mbaye. na ñëpp wax ne sëñ Mbaye Sy Mansour yal na fi yàgg lool. amiin amiin nii munu terale mhm. yal na yàlla dimbilu nu guddal fanam lool amiin dégg na nu de lii musul xew jërëjëf si musu ko defal kenn te nu tey tey am nanu quatre heures du matin mhm. si Malick yàlla yàlla guddal fanam xool yëpp ah oui ñu ngi nuyu ñëpp yéen tamit ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di seet ñëpp. jërëjëf laa ilaaha illallah. Badiane wuyul sëñ Alioune. waaw yaay wuyul maa ngi lay nuyu di la ziar Badiane. Ah, Alioune naa def Diagne. Ndiaye kay si di jéggalu sëriñ bi ci bu fekkee wax nañ fi lu waxuwul. ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di ko ziara di kontaan. incha allah Diagne ñu leen di nuyu yéen bu baax leen jégalu. ñu ngi koy ziara bëgg na lii rëy na ci ñun lool. waa kay nuyu ma Pape Cheikh tamit ñoom ñëpp bi. yëpp ñu ngi leen lii rëy na ci ñun. jërëjëf ah, <laughs> euh, lii sëriñ bi man la ko defal. Pape Cheikh la lii sëriñ bi man la ko defal. Bab An duma bàyyi ma fen nee na man nañ waxtaan ci wilaya Seydil Hadji Malick ma ne ko maa bañ. te kat damaa bëggoon defanteeg yow rek waaye man. <laughs> waaw Bab An dafa ne nañ waxtaan ci wilaya gi ma ne ko. xalifa bi du ko nangu. Hmm. bëggul yooyu. Ah. moo tax manaaxi bi sax biñ ci duggee. Ah. mu ne nañ dellu ci jikko yi. Hmm. am na ku ma posé benn question léegi. ci hmm. diggante waati waawan nuñ mel ak këru diine yi. sëñ Babacar